xamna wa kay ah koku daf koku man buñ ma ko mayoon ma sëyal ko ba sëyal ko fu dara nekul ñaaw góor du ñaaw na pos ba dis kum ci taxawon sa keur ne la guro ngi ni nga ni ko nañ dem ay eh, parce que taru jigen sey la eh, te li may def yep peut-être affaire de jeunesse la et tout ti mus nañ mako proposer d'ailleurs sax amna ay détails yoo xam ne bëgg yow kumbi kañ la fi gëj <laughs> ñoom li ñu football nii lan la est-ce que xam nga man ak football defuñu neen damay suivre nii bu ni ñi yuuxoo ma yuuxoo suñu xàqataay ma mi xaw ma ci dara. billaay xaw ma ci kenn am na ku ma ci xamoon temps yii day toj di yëngal waaye billaay xaw ma ko am na ku ma wokk ne ma xam nga ki nga toogal ba ne ko déedéet mu ne ma diwle ma ne ko billaay xaw ma ko <laughs> xaw ma kan la billaay xaw leen ku ma ci gis. eh déet bul ma dugal bul ma dugal de bul ma dugal toogu maag benn Sadio Mané mais daal am na ko ma toogal xam nga ñu xamante ni mais xaw ma fu mu toj pourtant nee na ma lan nga de ma naan ko man c'est-à-dire di ko sama vie moom it mu ne ma footballeur la ma ni boo demee joueur nawetaan la toju football yi ko yàq ngay yor waaye duma ko nangu <laughs> ci man euh, sama mag sama xarit muy Eben Diop ma koy nuyu bu baax borom Eben Nails ak Eben Cosmetics Eben Bar maa ngi koy nuyu bu baax a baax. maa di jaajëfal yéen tamit merci à vous kontaan naa ci waa Grand Grand Théâtre TV di leen wax nag lépp lu fi ñaan ok ciao.